المؤمن المنتقى حبيبي حقيق والله أحد يبعد فدين خير المؤمن المنتقى يحفظ كل الله رب العالمين. xalifa général bi ci réew yëpp di leen jox seen xanaa rek di leen ñëw yeesal si suñu ab ab taalibe si mbokk taalibe yëpp comme ni ko fi ñu jor yi ñu ko laajee mooy lu sabab liggéey ak seqasa si mu demee nii daara ji mooy daara Tasawudu Sixaar Touba waagu na xam ne dafa dajale ndaw ñu nekk si gox bi yëpp ñu fas yéene liggéey si suñu mu gën a yeesee donte nag kenn xamul ngërëm li fu mu nekk ñu ngi koy liggéey waaye ñu def si suñu ket laay kàttan bi waaw donte di dajle ñu ñëpp rek ngërëmam la dañu fas te yàlla nañ ko dee si ñëpp si mbokk daal yëpp xanaa di tuubaati kàddu yi nag bu njëkk rek waroon nañu tàmbali ci ñaana si si seen seen Mountakha Mbacké kon ñaana saa borom yàggal ko fi dama ànd ak wér ak mboolem xalifa général yi nekk si réew yëpp السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيو زيار مقتال بيب كي زيار نيب تجيد اسمي بسم الله ما كان من خالد زنا لديمون ko weesoo mbooloo Mbàkke Mbàkke bu nekk ci ginnaawam rek ak képp nga a ne maam kilifa la ci même réew rek ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay lu ko gën a yelloo kon su ko defee rek comme na ko jëwriñ waxee léegi rek muy mel ni ñun waa daara Tazawudu Saxaar bu nekk waa Guñaay danoo tëraloon li nga xamante ne mooy màggalu daara ji li nga ne mooy deuxième édition bi première édition bi suñu borom dimbali nañu ci mbaaxu sëriñ bi dinaa koy taxawalee li nga xamante ne mooy année bii ñu wees léegi nag ne mooy année jii ñu ne suñu borom tamit kàttan la ñu may ñu fekkee ak tal ak kàttan gu yaatoo yaatu ba nga xamante ne mën koo taxawalaat ci jaam ak salaam li nga xamante ne mooy ëllëg la la lay am fii nii ci waagu ñaay fii nii lay amee kon maam ñu si woo mbokk taaliba yëpp ñu si woo mboolem jàngkatu xasaayat bi nga xamante ne amul xasaayat da bokk rek ñu ngi la ci woo bi nga xamante ne am lu maanaam moo xam jàngkat la moo xam yëkkatikat bi la moo xam durufkat bi la ñëpp ñëpp rek ñu ngi lañ ci woo maam ñu mën a taxawaay taxawaayu bis a am solo maanaam tamit gën a gën a gën a passeeku nga xamante ne mooy programme bi maanaam ñëpp xam nañ ko daanaka programme bi maanaam suba si day ni nga xamante ne moom la ko sëñ bi maanaam yàgg yàgg bëggee moom sëñ ko yàgg baaxoo di def mooy wàccukaay bi moom la ñu amal si suba si ginnaaw bu ñu wàccalee wàccee kaayoon ba pare dina am fii ay liimu xasaayat nga xamante ne maanaam moom la ñu war a ñëw durus li nga xamante ne duruskat yi nga xam ne waa amul durus ñëpp incha allah ñu ngi leen woo nga xamante ne maanaam durus bi dinañ ko durusee comme ni ko suñ bi bëggee ay ci ay lim la nag ay lim yu tegoo ci ndigal loo xam ne day gën a taaral bis nga xam ne gën a may jëm loolu rek moo ko ci tax a jóg bu loolu weesoo nga xamante ne gannaaw bu ñuy jullee tisbaar kon nga xam ne xéewal yi dinañ dina gën a yaatu ci mbokk taaliba yëpp nga xamante ne tamit loolu tamit dëgërul la te gën a taaral bis bi su loolu weesoo muy mel ni njàngum kuréel gi nga xamante ne mooy ñu gën kaa xamee surtout yëkkati xasaay di moo ngi si 5 heures gannaaw bu ñu jullee tàkkusaan ba bare ci ci lay ci lay tàmbali kon kuréel yi muy mel ni am na yenn kuréel yu mag yi nga xamante ne sax maanaam jot nañ leen cee woo maanaam ñu ngi si xaar seen taxawaay bu baax a baax te am na si seen seen ndigal ni ñoom dinañ ci teew comme lu si mel ni Nuuru Daayira comme lu si mel ni Hizbut comme lu ci mel ni waa KSC ñoom ñëpp ñu ngi ci woo ak mbooloo mu kuréel yi nga xamante ne ñëwoon waa Guédiawaye ak lu ko wër ñëpp dina ñëw si bis bi kon mbokk yi ñu xamee ku noonu tey jégalu bu baax a baax tey tubaab bu baax a baax te di waxaat rek di santaat suñu tubaab bu baax a baax moom mi ñu kàttanal ak nga xamante ne may ñu maam kàttan ak tal ñu fekkee ko xanaa ñuy wax rek di baax suñu borom ci li nga xamante ne mooy subhaana sil ko wal malakut subhana zil xisati wal jabarut subhana xayu lazi la yamut subooxun xuddoosun wa rabbul malaikatahu wa ruuxu moom mi nga xamante ne moom du dee mukk moom buur bi nga xamante ne moom moom lépp la am ruux malaaka nit mbindeef yëpp moo ñu moom kon maam nañu nañ ko yàgg may ñu fekkee ko ak tal kon mbokk yi ñu ngi leen di ziyaar baax a baax tey tuubaat ci yu baax a baax tey jégalu ñëpp lépp lu si jub rek ñu xam ne maam ndigalu borom lépp lu si dëng rek ñu xam ne man la waaw kon maanaam ñu xamee ko noonu kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala